Mor Soxna Lo euh, nekk jiite antenne nord bu projet Agri Jeunes antenne nord nag moo yor région de Thiès ak région de Louga tey jii ñu ñëwoon tey pour euh, waxtaan ak partenaires yi maanaam daje boo xamante ni bi ñu ngi koy toni tuddee comité régional de planification nga xam ne chaque année dafay am li koy waral nag mooy bu ñëwee dañuy présenter li nga xamante ni wane li nga xam ne moom lañu liggéey ci at mi mais bu ñu paree ñu saytu ko xool li ci dox ak li nga xam ne doxul ak li ñu war a jubbanti bu ko defee ak partenaires yi ñu jubbanti ñu kii ko ñu ñu jàpp loolu bu ñu paree aussi ñu fexe ba euh, présenter leen aussi li ñuy wax PTBA 2023 maanaam ni ñu li ñu waral liggéey ci at mii di ñëw loolu aussi ñu présenter leen ko ñu xool ndax loolu méngoo na ak li nga xam ne moo ne ci document de projet ak méngoo na li nga xam ne moom la gox bi bëgg muy région bi bu ko defee bu ñu demee ba xool loolu yëpp saytu loolu yëpp càmbar yooyu yëpp après nag door ñu jox feu maanaam valider le PTBA 2023 pour que ñu mën a ñu mën a commencer liggéey bi ci janvier bi. jàpp projet bi mu euh, projet la bu juróom-benni at. waaw donc mu ngi war a jeex ci 2025 euh, incha allah et puis euh, li nga xamante ne bi moom la ñu def tey tamit mooy voilà quoi fexe ba présenter li nga xam moom la ñu war a liggéey at mi di ñëw te bi ñu ko présenter aussi comité bi vraiment saytu nañ ko et te validé nañ ko aussi nangul nañ ñu ko. donc année bii di ñëw donc xam nañ li ñu war a liggéey fii ci région Thiès. bi euh, juróom-ñetti région la ñu tànn ci projet bi parce que li ko waral mooy juróom-ñetti région yooyu booy boo jëlee population bi juróom juróom fukk euh, téeméer boo jël juróom fukk yi ak juróom ci ci huit région yooyu la ñu nekk donc foofu la nit ñi ëppee mais li ci ëpp solo mooy que boo boo jëlee aussi xale yi nga xam ne ñooy suñuy cible ñi nga xam ne ñoo tax projet bi jóg téeméer boo jël. maanaam juróom benn fukk yi ñu ngi foofu ci juróom ci juróomi ci juróom-ñetti région yooyu ñu tànn. pour 2023 euh, ñu ngi tànn lu tolloog ci euh, juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukki ndaw ñoo xamante ni bi war nañ leen a accompagner ñenn ñi euh, dañ leen ñoom ñëpp dañ leen di former d'abord mais ñenn ñi bu ñu leen former ba pare dañ leen di jox subvention maanaam jox leen xaalis boo xam ne duñ ko fay mais dañ leen di encadrer pour ñu doxal doxal seen projet bu ñu leen former ba pare ñenn ñi. dañ leen di jox financement boo xam ne yombalal leen financement boo xam ne dinañ ko mën a am ci ci banques yi ak ci mutuelle yi ndax ñun dañu signé convention ak banque yi ak mutuelle yi pour que xale boo xam ne tànn nañ ko projet bi tànn na ko formé ko ba pare buñ ko indee ci mutuelle bi mutuelle bi mën ko jàppale pour mu mën a am financement te aussi projet bi indi na ay yombal yoo xamante ni bi ci wàllu garanti mutuelle de cautionnement lañ koy wax boo xam ne projet bi xaalis bu dugal la boo xam ne dina permettre jeune bi mu mën a am garantie waaye yemuñu ci loolu def nañu aussi li ñuy wax assurance agricole maanaam pour que xale bi buy li yëngatu ci liggéey bi muy def ci mbay bi wala sàmm wala napp bi bu amee ay gàllankoor assurance agricole mën ko indemniser donc loolu moo tax ñu ñaar yooyu moo mooy li nga xam ne mooy yombal financement yi ci institution financière yi muy banque yi wala mutuelle euh, jërëjëf euh, maanaam xam nga suuf moom dafa doon loo xam ne lu solo ci wàllu mbay te daanaka mënul ñàkk ci mbay bien que projet bi nag dina def mbay sàmm ak napp dina accompagner jeunes yi ci fànn yooyu waaye suuf bi ñun naka la ñu def pour yombal ko xale yi euh, mooy waxtaan rek waxtaan la waxtaan ak famille yi waxtaan ak euh, maire yi maanaam collectivité territoriale loolu daal mooy wax waxtaan bu ak famille yi mooy dañoo jël organisation de producteurs yi kuréel yi nga xam ne dañu ŋànk wàllu mbay wàllu sàmm yi nekk ci base bi ñooñu la ñu jox nañu am ak convention pour que ñoom ñu dem waxtaan ak ak ak ak waajuru ak famille xale yi pour que ñoom ñu mën a yombal xale yi euh, ñu mën a am suuf suuf bu ñu defee seen projet euh, parce que nag lu ci bari dañ dul xam moo tax duñ leen ko yombalal mais bu ñu xamee li ko tax a jóg parce que xale bu ñu ko jëlee ci famille bi dañ koy former bu ñu ko former ba pare financer ko bu ñu ko bu amee nag fu mu waree def projet am loolu buñ ko ko yombalalee day tax wax dëgg yàlla mu mën ci gis boppam et puis li li nga xam ne moom lañ ko andil aussi dina profité en dehors de xale bi dina profiter famille bi donc loolu moo tax euh, ñuy dox ay jéego yooyu ci famille bi pour fexe dal mu yombal xale bi suuf parce que ku ne xam na ne xale moom amul suuf suuf bi en général chef de ménage yi ñoo ko yor wala exploitation familiale yi mais nag xale bi comme ci famille bi la bokk dañuy dox ay jéego waxtaan ak famille bi essayer ko com ba mu comprendre li ñu tax a jóg pour que mu yombalal xale bi mu mën a am suuf bu mu defee projet bu dee ci beneen wàll bi ci maire yi collectivité territoriale yi ñooñu aussi dañuy waxtaan ak ñoom ndax xale yi ñuy tànn aussi ci communes yi lañ jóge moo tax dañuy fexe ba xale yi ñuy tànn ñu jóge ci commune bi ñu wax ko maire bi ne ko wala ak conseil municipal bi ne ko xale yi say xale gox lañ mais nag jafe-jafe bi ñu mooy ñu suuf bu ñu defee seen projet te ñun dinañ leen former dinañ leen financer mais nag suuf bi moom yéen la état bi jox mooy ngeen ngeen war a def loolu ñuy wax délibération wala ngeen yombalal ko en tout cas askan wi donc bu ñu leen waxee loolu nag après ñoom ñoom ñooy xool pour vraiment régler problème boobu ak xale yi mais suuf bi moom doon na problème boo xam ne euh, moom kii na am na su kii na loolu quoi problème bu doy waar la mais daal ñaari jéego yooyu daal lañ ciy def waxtaan ak mair yi pour wax leen xale yi kat seeni xale lañ sélectionné nañ leen dinañ leen former dinañ leen financer waaye suuf bi moom yéen yéen a ko mën a joxe wax ak famille bi ne leen ah kii seen doom la ci seen njaboot la formé nañ ko financé nañ ko mais dangeen koy yombal nag suuf bi ngeen yor ngeen yombal ko foo xam ne dina fa mën a doxal projet pour ñu bindu pour xale yi bindu euh, ñaari ñaari mën nañu bindu ci ci ñaari ci ñaari yoon benn yoon bi mooy am na ay fiche maanaam fiche yoo ay kayit yoo xam ne euh, fiche la boo xam ne euh, moom lañ leen di jox pour que ñu remplir ko fiche yi mën nañ ko amee ci service yenn service technique partenaires yi comme ANPEJ mën nañ ko amee aussi ci ay ANCAR wala wala direction de développement rural yi ñoo ñooñu nga xamante ne bi ak aussi les points d'information de proximité pro euh, pib yooyu nga xam ne dañ ko taxawal pour informer sensibiliser les jeunes foofu tamit bu ñu fa demee mën nañu am fiche bi pour mën a bindu euh, bu ñu bindoo rek après ñu ñoom dinañ jox fiche yi bu ñu joxee fiche yi après ñu dugal ko ci base de données bi door a commencer processus de sélection bi bu fekkee ne nag aussi mënuñu loolu am na nañ beneen benn lien boo xam ne euh, à partir internet di nga mën a di nga mën a bindu ci internet euh, boo amee sa téléphone am sa connexion mën nga cliquer ci du 3w point agrijeune point sn am na fu ñu bind je m'inscris bu boobaa foofa boo ko cliquer fiche bi dina génn nga remplir ko boo ko remplir après ci suuf nga def envoyé boo defee envoyé rek dina ñëw ci projet bi boo ko defee ñu mën ko jël en charge sa demande.